الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نير المقيم كنير مسلم بوب. جتامل يسنيك نيو. ديكو جابل سيرين سيدي مختار نيغا خامل مون نيار لدف مجيتي جابو تمورد يب di ñaan suñu borom bàyyi ko fii. ñu may delloo tuuti wér. ba yi mu na mu àggale ko ci jàmm ak mbooleem taalibe suñu nuyu sëriñ Sidi Maxtaar di ñu nuyu mbooleem kilifa diine yi nekk ci réew mi yépp di leen ziar te seeni leer toog fii ci njaboot gi ànd ak ñun ci liggéey bi.

ak mbooleem chef de service yi nekk ci département bi yépp di beral ak cant sous-préfet bu Ñaaxeen di ko seedeel préfet liggéeyam bu rafet ci gox bi sëriñ bi mi ngi koy sant di ko ñaanal ñi ngi dellu di sant yàlla bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin jàpp nañ de ne Serigne Ibnu li mu bëggoon ba sos bis bii nga xam ne tubaab dafay wax ne répétition pédagogie la at mu jot ñu dellusi ci waaye du ñu jóg du ci dellusi ndax Serigne Ibnu de lu waaye mës a xëccoog moom bàyyee na la ko dëgg la moom Serigne Ibnu de lu mu am bokk na kook nit ñi waaye rawatina ay mbokkam bi muy sos bii de bis bii de lu boole mbokk gi ca dëgëral ko ca sagal ko rekk moo taxoon mu koy def kon loolu tey jii mel na ne yàlla dimbali na ko ci bëggam boobu ndax mbooleem askan waa ngi nii toog bokk ak bis bi la bëggoon ci dëkkam bii tamit nga xam ne maamam ja moom Mouhamadul Amin moo ko sos ca mu doon topp leeru suñu borom yi ak fu mu mën a jaamoo yàlla ba agsi ci dëkk bii lam ca bëggoon lépp timit suñu borom defal na ko ko kon mën nañoo wax ne ñi ngi sant yàlla bu baax di sant mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ bokk ci liggéey boobu ak mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba liggéey bi mel ni mu war a mel nii ni ñu ko doon defee ci at yii ñu génn am na ñetti at muy taxawal symposium boobu nga xam ne bi sëriñ bi bëggee lu yaatal bis bi ba ñu créé comité d'organisation bi teg ko ci sama loxo wax naa ko ci symposium bi ne dara taxul ñu def ko ngir fedd li loo xamante ni dafay amoon ba noppi sëriñ bi bi njabootu suñu waajur yi nga xam ne ñoom lañu parrainé di suñu bàyyi sëñ Cheikh Amar ak suñu bàyyi sëñ Daaru hmm. tey ci bëccëg sëriñ bi mi ngi leen di fàttali bi sëriñ ibnu amar njëkkee woote bis bi nga xam ne suñu bàyyi sëñ daaru moo ko jël yóbbu ko ci otoom moom ak suñu waajuroo sëñ Cheikh Fall Xataaba ñu ñëw fii ci cooku keroog la sëriñ ibnu njëkk woote màggal yi loola am na juróom benn fukki at ak juróom ñett oh. wante lan mo tax mu tokhal ko andi ko jéem lu mata leral def nako ko am nañu wax ben ba ñaari at andi ko suñu bi ci ngandik ma ci ma sha allah nekkon ku bax ku rafet xel ñew wax imnu neko yow de da nga bëgg lu degeeral mbokk gi da nga bëgg lu leen boole waaye man de jàpp naa ci sama gis-gis ne boo ñëwoon jéemul gi nga xam ne Ahmed Lamine fa tëdd kon mbooleem askanu daar koo ko bokk jàpp naa ne ca kon woote boobu ci lay gën a dëgëral sëriñ Ibnu ci ak bëggam lu baax ci ak yaatoom ci ak yaatalam del màggal gi ca ndigalu magam ju baax ja sëriñ Aliou Amar ak mbooleem ñu mbokkal sëriñ Béthio Ndongo Dior jël màggal gi indi ko fii ci jéemul waaye taxawal màggal gi tim bokk ko ak mbooleem askanu Darou Manko bi yépp ñoom ñépp nangul ko loolee nga xam ni jaayante woon na ko sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ca fay ko ba ñépp xam ne sëriñ Touba fay na sa ñim ñuy doxal ñuy doxal màggal gi ba suñu boroom dogal mu agsi ci loxo Serigne Khadim mu doon jëwriñ nekk jëwriñ ci mbir nag firndewul ne danga koo moom hmm. sëñin mu de kenn mësu koo dégg mu ne diw lay màggal dadaa wax ne màggalu jéema kon sëñ Khadim mi ngi dellu di seedeel ñépp ne dafa nekk jëwriñ ci liggéey bi te tàllal na ci loxoom mbooleem askanu ahmadul al amin fu waay mën a nekk nga xam ne lii teewoon sëriñ Ibnu ak li taxoon mu sos bis bi du lenn ngir ñu bennoo dimbalante nemmeekonte suqali gox bii nga xam ne suñu maam bi ñëwee fii la yàlla dogal mu wàcc bu ñu dellusee tuuti ci symposium bi nga xam ne ñi ngi ko doon def ma wax lu tax ñu ko doon indi kon dafay fedd li laa waxoon euh, liggéey bi nga xam ne sëriñ Ibnu ba mu jógee ci sëriñ bi ba bi muy làqu ci la nekkoon at mën ko njëkk a def sëriñ Mor ma lañ ko tudde waa gàdd yépp ngi ñëw toog ci bis bi tudd nañ léegi sëriñ Murtada ak i doomam ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk ba ñoom sëñ Maodo ak sëñ As ku ne xam na diggante sëñ Ibnu ak magam jooju sëñ Mor Faari wax nañu ko ay yoon bu ñu dellu si waat taarixu màggal jiitim wax nañ ni ca jamono jooja bokkoon na ci benn yi gënoon a fonk cere lay cere yooyu ca gàdd lañ ko daa defaree di ko indi fii ci jéem wax naa sànq ci diggante sëñ daaru wax naa sanq ci diggante suñu bàyyi yi nga xam ne ñoom lañ tuddee woon daaw muy suñu baay Alaaji ma gumba ca Louga ak suñu baay Amar Maane mii ci Ngàndek ca seen njaboot gi taxaw taxawaay bu am solo ci bis bi ñoom sëñ ndongo sëñ àll sëñ sàngoone ak mbooleem seeni rak ñoom soxna Adama soxna Faat Jama ñu xam bu baax ñoom tamit cër bi am ci bis bi ñu xamal ko seen bopp teel ko seen bopp ci firndeel lañ ko ci seen taxawaay ak seen japp guñu japp ci magal gi serigne bi mi ngi len di mbo len jabotu serigne imnu mi ngi len di sante ñu aksiran nak tuddé ko suñu baye serigne cheikh amar ak suñu baye serigne daru amar di sante bu baax serigne khadim ñaari serigne khadim yépp serigne khadim astan ci bir serigne khadim mu ngi ni to ak mboolem seeni rak ak seeni jigen di wax taxawayu serigne khadim ci kër gi di wax taxawaayu sëñ xaadim ci dëkk bi di wax taxawaayu sëñ xaadim ci màggal bi ndax woote saa su nekk mi ngi koy def ngir du ñu soññi nag ci lu baax ak lu tegu ci dëgg lu waay néew néew loo xam ci moom xam ne ni ku dëggu la nit ku ñàkk caaxaan la waaye di sant seen doom ji nga xam ne jëf na jëf ju rëy ci màggal bi ndax bi yàlla dogalee ñu nat seen tur ñooyu di suñu waajur yooyu tudde leen bis bi war a def symposium bi dañu jóg ñoom njaareel fekk ci sëriñ xaadim ñaari sëriñ xaadim yépp wax leen li nga xam ne ginnaaw bi ñu jógee jëlee digal ci sëriñ xaadim nar nañ ko ñu rafet lu ko lool wax ci sama kanam ne loolu de sëñ maam ma lañ def jëwriñ ji ngir mu toppatoo ma toog ci Dakar sëñ maam ma woo ma ne ma naa ñëw fekk ko bureau Cheikh bi ñu toogee di waxtaan Cheikh a ngi toog sëñ maam maa ngi toog ay rakkam ñoom day matu ñu ngi toog ay waa kër ndeyam tim ñu ngi toog nijaayam ak ay doomu ndeyam ñu waxtaan ci màggal gi waxtaan ci ak mbokk mu rafetlu ko bu ñu ci dellu si sëriñ Mama wax na ne sëñ Cheikh dafa jëf jëfaale mbooleem askanu Mama Mandaago mu wax ma ne ma lan lañ aajowoo ci màggal bi ma tëralal ko mébét yi nga xam ne bi ñu waxtaanee ñun ci suñu biir ci ndigalu sëriñ Xaadim moom lañu amoon ngir taxawal màggal gi mu wax ne lépp lépp lu ñu soxla nañ ko bind léegi calculer ñaata la mu joxe ko ci saasi loolu bind di xool ban nangam la ñu soxla bâche bii ñu taxawal di xel comme bâche ak mbooleem lu ñu yittewoo mu ñu xool ko ak transport yeeg ak lépp lu ñu soxla mu nekk 10 millions mu toog fi mu toog génne 10 millions jox ñu waaye 10 millions sax mën nañ ci dolli ne defaraatal nañu ñu ay t mooy yi ñu jox ci xale yi lu toll ci juróomi téeméer jox ko ngir jàpp ci màggal bi mu defee loolu ba noppi mu xamal ma ne ma lii nag dama ko joxe ngir ñu def ko ci màggal gi mooy mbébét yii ngeen am li may indi ci màggal gi bokkut ak lii dara eh laa ilaaha illallaah ak kon moo doon mu ñëw teew ci màggal

mën na ko benn yitte ooma ko. yaa gore de li nga xam ne nii. fii rek kese fondation Cheikh Ibn tëral na ko ca muy fondation boo xamante ni wàllum njàngale ak développement ak solidarité moo ko tax a jóg. ca projet bi nga xam ne njëkk nañ ko am mooy taxawal benn institut islamique boo xamante ni day am daara ak benn centre culturel boo xamante ni askan wii nga xam ne dañ fi bokk ci mu am histoire taarixu ay junniy at. mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci askan wi mën ko fa tënk ku jóge ba Amérique boo ñëwee loo ci bëgg gëstu fekk ko fa mu jël engagement ne ma loolu dinaa ko def te dinaa ko def ni ngeen ko bëgg a defe bi ñu fa jógee bi ñu agsee ci seen symposium bi sëñ maam ma wax ne bis bi nga ñëwee wax ak Cheikh la mu waxoon nee na ma wax la ne jël na architecte bi koy defar ngir mu taxawal institut islamique boobu lu ci nekk ci loolu rekk dinañ ci leeral sëriñ xaadim mi nga xam ne moom la yàlla def mu doon xalifa sëriñ ibnu moom la yàlla def mu jiite njabootu sëriñ ibnu moom ci bëggam tamit la def lii ñuy def saa yu ne teg leen dañuy teg suñuy yëkkati leen dañuy yëkkati biñ ko waxee liggéey bi mu rafet rafetlu ko lool ndax xam gi mu xam ne Serigne Ibnu Dey ku bëggoon alxuraanul karim la ba tax na màggal gii nga xam ne bi mu ko sosee ba léegi saa yuñ koy màggal ak juma lañuy jàng alxuraan ba bis bi dellu si daaw wax nañ li mu alxuraan yi ñu am ren dañ ci xaw am ay tëq-tëq ndax ñi ñu doon woo waaye di ñu envoyé message dañu wax daanay kaamil bi lim yi ñu jàng waaye jot gi mayuñu ko ngir ñu dajale ko pour wax limu alxuraan bi waaye mën nañoo jàpp ne lim bu takkoo takku la sëriñ bi rafetlu ko ca sëriñ xaadim amut lenn lu muy def sëriñ Bara Laxat wax na ko léegi ca jëfandewu ko ci ndigal li nga xam ne ki ko koy jox mooy Serigne Sidi Maxtaar ndax moom la yàlla def mu nekkal fi xaadim rasul dëgg la ci lépp lu ñuy def su diggee ci noppam ba mu jox ko ci ndigal mu validé su ko nee tegal ci suuf kenn dutu ko dégg kon na ñépp xam ne tamit lépp lu ñuy def sëriñ xaadim amar la neex su nee nañ teg ci suuf ñu teg ci suuf su nee nañ jàpp ñu jàpp ca fas yéene wu ñu yëkkati lépp loo xamante nii dara loo xamante ni ku ko dégg ne lu tax ñu suñu borom def ko ñaanuñu yàlla wax wala ñu am benn projet ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ku ko dégg boo dekkoon ba siri wala nga nekk ba Pakistan ne lan moo tax ñuy def li kon jàpp nañ ne tamit Serigne Khadim du ñu tere lenn lu ñu def ñu ngi ñaan suñu borom dimbali ñëw suturaal ñu ba duñ def lu mel noonu. ñi ngi sant bu baax tamit ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi bu baax a ba di sant bu baax Moustapha Amar bu suñu baay mbay kuy jàpp ci màggal gi la dem na ci amet ñëw na fi fi lay yendu joxe na fi dund bu bëree bëri ñu seddale ko ci dëkk bi ak boole ko ak li nga xam ne fondation bi tamit dimbalee na ko waa dëkk bi yépp di sant bu baax tamit sëriñ bi di ko sédel comité d'organisation bi nga xamné ne ni ñom lañ man lañ andal ci liggéey bi ci may tambalé ci sama rak sëriñ mohammed sëriñ son bi mi nga xamné ne taw ci kër gi nga xamné ne lu jitu magal gi hmm. day bay yitteem yépp ak soxlam yépp ñëw man ci liggéey bi waye su tuddé tuddee sëriñ son bu damay tudd rakam yépp sëriñ murtada ak rakam rakkam sëriñ moustapha jàmbaar lool moom tamit ci liggéey bi tudd sëriñ cheikh mi nga xamné tamit wax deug yalla ma ngoy sante di ko seedeel sëriñ bi japp na ci liggéey bi bu baax exposition bi mom la ko joxoon mu def ci liggéey bu kawé suñu jortu lool def ci dolem ak alalam ni ngoy sante bu baax di sante mbooleem comité d'organisation bi tamit ñii am na ñu nekk ba bitim réew. te ñu jàpp ci liggéey bu baax di sant di la ko seedeel sa taalibi bii di Ibnu sekk moom Alaaji Mooda Seck ku teel a tàmbali ci màggal gi la ay yoon dama naan ko demal nga toog nga noppalu waaye lekkut naanut ndax loo xamante ni dafay sagal bis bi lu koy defal ren jiitim ci symposium bi am na ay màndarga yoo xamante nii dañ ko joxe ay prix yoo xamante ni fondation euh, euh, Serigne nu Amar biñ ci waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey comité d'organisation bi jël nañ ay prix tudd ko ay prix d'excellence ñu jël ca benn jox ko Serigne Misba tudd ko prix d'excellence du mérite ngir xam-xam ngir taxawaayam ngir yiw ngir jiite gi mu jiite njaboot gi nga xam ne. ñoo takk jox ko seen bopp jiital ko ci kanamam jël nañ prix d'excellence de la paix jox ko sëñ àll bu suñu bàyyi Amar Maane ngir ab yaram ak bëggam lu baax ak bëggug mbokk ak ndax jàmm jël nañ prix d'excellence pour l'éducation jox ko sëñ Ibnu Amar mii nga xam ne moom moom suñu bàyyi sëñ may mm. sëñ Ibnu moo ko defal lépp yóbbu ko mu jàngi bi mu ñibbisee ba légui tamit dundam gep ñu ko consacrer ci jàngale alcorane ak xam-xam jël nañ prix tuddu ko prix d'excellence du développement jagleen ko cheikh amar ngir taxawayam ci sénégal ak liggéey jël nañ benn prix tuddu ko prix d'excellence pour la diaspora ngir di ko jox ñi nga xam mbokk yi nga xam ñi ngi bitim réew ci ñu ragné sen taxaway ci prix bobu ñu jox ko bada sadi waaye sëriñ bi maa ngi sant sa doom tamit sëñ Mbay Amar mi nga xam ne léppam sëriñ mu la ca cant googu ñu koy sarale ba ca sëriñ Abdou Khader mi nga xam ne waajuram yi sëñ Moodu Faati ak sëñ Isaa dafa bokkoon ci ñi ñu doon fàttali damay wax ne taarix dafa am solo mm-hmm. fii di jéemul demoon nañ ba ku sant Amar dëkkatu fi sëriñ ndongo ñëw ci dëkk bii ku ne xam na li mu fi def ku ne xam na liggéey bu sell bi mu fi def ñu ngi ñaan suñ borom yokk ay leeram ak mbooleem njabootam waaye dafa mel ne léeg-léeg dañuy fàtte ni ginnaaw sëñ ndongo dem nañ ba ku taq ci sëñ ndongo dëkkatu fi sëriñ Modou Fati ca ndigalu waajuram ba sëriñ Ibnu Amar nekkoon ku jàmbaare lool nekkoon ku dëgër lool nekkon ku dëggu lool ci luñu wax ci mom rek man nañ ko bolé ci rakam la ndax ñom ñamo 6 la won ak 9 sëriñ mu tek ko ci dëkk bi mu liggéey fi liggéey bu rafet jóge fi rakam ja aggaleel ko liggéey bobu ci ndigelu sëriñam mu mar kon ñu ngi leen di sant njaboot yépp di sant tamit sëriñ bi dina ko sédel sa taalibe bi bi nga xamné ma nga fee ci Serigne di Maxtar ku ne xam ne cër ba mu fa nekkee ak lam fay def bokk ci ñu gën a jaxasoog sëriñ bi di sëñ maar ak baax jàmbaar la ku bëgg sëñ ibnu la ca yemalewu koog dara ku ñuy jàppale ci liggéey bii la ak ak di ñu jox xel di ñu woo di nemmeeku di sonn ci bis bi kon ñu ngi koy sant bu baax di la ko seereel di séeréel mboolem askan wi ak taalibe yi suñu sant jëmale ko ci sëñ xaadim mii nga xam ne wax naa ne moo fi nekk jiite jaboot ji jàppale nañu bu baax ci ñu koy sant ak mbooleem njabootu sëriñ ibnu yépp gu góor ak gu jigéen waaye sëriñ bi ma lay may seede mbooloo mi ne sëñ xaadim de bu kenn jàpp ne dafa am lenn lu may ràññale wala di ma ko xàjjale ak kenn moom li ko yitteel mooy bis bi jag li ko yitteel mooy bis bu baax kon nañ xam ne loolu rekk la jàppee ci liggéey bi nga xam ne jox nañu ko moom tamit teel ñu boppam ngir dëgëral ñu ba liggéey bii mën a àgg fii nga xam ne nii àgg na fa ba ñépp di ko naw man de may wax ne xeeb naa ko lool ndax ku xam sëñ ibnu ak pas-pas bi ko andi ci Serigne Touba ak ni ko Serigne cofeel gi Serigne Touba amoon ci moom jàpp naa ne lu nit di am ci kaw suuf rek sëñ noo la ko gën a mérité kon jàpp naa ne lépp lu nit di am ci kaw suuf rek war naa ñëw fii ci atu Serigne Amnu bi dëgg la jàpp naa ne lépp luñ fi gis ba di ko yéen rek li koy ñëw koy ëpp fuuf ci gën koo baax kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la fi mboolem ak sa njaboot ak mboolem njabootu sëñ bayti ndongo jóor gi yépp ak mbooleem askan wi nga xam ne yàlla boole nañu ci muy askanu darmanko di ahlu ansar di fàttali di soññi njaboot gi ne leen ni ngeen xam bu baax seen maam seen waajur wa fa mu nekkoon muy sëñ Imnu sëriñ Imnu de ku mësaa yëkkati wax ju ñaaw jëm ci moom wax yu rafet lay yëkkati jëm ci yow ku mësaa yëkkati ay musiba di jëm ci moom mu yëkkati aw yiw jëm ci moom jëm ci yow lu way xëccoo ak moom mu bàyyee la ko ca ànd ak yàlla ak Serigne Touba kon maa ngi leen di ñaan képp koo xamante nii mi ngi leen di xëcc ci leneen lu dul loola na ngeen ko bàyyee ak loola ca nekk ca la sëñum lu nekkoon mooy bëgg lu baax nekk ci lu baax ca bañ koo boole ak jenn wax bu ngeen ca nekkee de lu ngeen mébét suñ boroom dina leen ca jàppale ndax sëñ nu daf daa wax ne li gën a jafe moom la ma suñ boroom di yombalal kon na ngeen di mébét ay mbébét yu rafet waaye na ngeen ay mbébét ay mbébét yu kawe ngeen xam ne ci fu baax ngeen bokk ngeen xam ne lu rëy ngeen am te ngeen fexe ba bu leen kenn gis ci lu leen di yedd bu leen kenn gis ci lu leen di yabe da ngeen di fekk teg seen tànk ca la wolof waxoon bu leen bañ ku leen sa sedd ci gaalu kalbun waaye na ngeen fexe ba bu leen ca kenn fekk ngeen di jëfandiku kon sëriñ bi loolu moo nekkoon suñuy kàddu di sant mbooleem mbooloo mi waaye di sant di ministre de la santé Eva Marie Coll Seck jàppale nañu bu baax ci liggéey bi dafa ñu yónnee sax euh, tey ji ay gàllankoor moo ci am camion boo xamante ni euh, ambulance médicalisée la ak benen camion bo xamanteni dañu warona def fajj ñi am bëñ ay spécialiste yàlla def ci am dok camion bi pan ba yeex a waye di sant serigne bi mbolen taalibe yi nga xamné ni ak daayira suñu ibnu lim na ñëw nañ def sen alal ak sen doole ci liggéey bi serigne bi mi ngi len di sant bu baax di sant bu baax tamit diko beral Euh, Serigne Modou Kara mi nga xam ne yónnee na fi ab délégation yónnee ay taalibeem ñu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ñu ngi koy sant ca sant googu ñu koy jaarale ci soxna Njóoba mi nga xam ne mi ngi fi ngir mu jot li ñu ko sëriñ bu baax a baax di sant mboolem taalibe yi waaye may sant Pape bu baax sëriñ bi di la ko seedeel ndax nekkatu gone kenn waaye jàppale ci liggéey bi bu baax mbooleem ak i rakkam ak ay magam. ci liggéey ba nga xam ne defoon nañ ko ci Dakar ba fii ci jéemul ñu ñuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi ñu ngi la koy séeréel di la ko séeréel di ko séeréel mbooleem njabootu Sëriñ Muudu gi yépp di yemale foofu kàddu di jéggale nag ci yeexaay bi ak guddee gi ak toogaay bu yàgg bi ci jéggul googu ñu koy jël ci di ko teg ci loxo sëñ dan mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Serigne Touba di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ca dëgëral ko ca kàttanal ko di sant mbooleem ñi fi teew ñépp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf coordinateur jataay bi yàgg na waa day jataayu njëriñ kon mbooloo mi ku jaay kër ba tàkkusaan see boo nga laal xam ne dootoo